Binik Kër ñu ngi leen di nuyu di leen wax jàbb loxo confrontation comme ni ko tàmm di amalee àjjuma ju jot la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé euh, tey nag ah gis ngeen extrait bi nga xamante ne Mouhamadou Moustapha jox nañu ko balaa muy dellu si fii si plateau bi tey man maa ne ko Mouhamadou Moustapha faa nga toog dend ak man nii <laughs> nañ dend rek nga daal di déroulé mm-hmm. du dëgg euh, tey euh, wax dëgg yàlla ñu ngi waxtaanee ndaanaan mm-hmm. ah xam nga dama tàmm à chaque di wax dañuy invité artiste artist yoo xamante ne dañ leen di ràññee ci seen originalité ak seen créativité waaye yaakaar naa ni tey nit ki ñuy waxtaanee bu ñu nee originalité ak créativité euh, defe naa ni euh, euh, bu ñu waxee yaakaar naa ni du ñu dépassé ci moom waaw wax dëgg yàlla nit la koo xamante ne muy suñu suñu wayjur suñu kilifa ah suñu xarit wax dëgg yàlla mu génn àdduna tey ñu fas yéene toog waxtaanee li nga xamante ne bokk na ci ay œuvre am ah, gis ngeen semaine bi yëpp la 2STV euh, li mu def ci li nga xamante ne moom mooy euh, bi Papa Thione wàccee ba tey ah dimanche plateau télé yëpp daal dinañ koy changé def ko ci programme am mais taxul dara jeex ndax li may wax rek Papa Thione euh, daanaka bu ñu koy waxtaanee fii ba suba du ñu pare donc plateau bu ci nekk indi nañ benn tous boo xamante ne ça n'a rien ak plateau bu ci nekk gis nañ 11 13 li nga xamante ne Kheucha def na ko waaye tamit gis nañ démb ñu invité ay xaritam. ay nitam yoo xamante ne euh, buñ ne ay àndandoowam euh, ñu mu doon àndandool euh, kooku Père yi daal di leen invité démb ñu waxtaan ak ñoom ah sottante si ay xalaat waaye tey Mouhamadou Moustapha ñu indiwaat beneen crème ah crème boo xamante ne bokk na ci Papa ba tey bu ma nee crème bi ñu indi tey bokk na ci racine ay racine garab bi la racine bi mooy garab gi Papa mooy racine bi waaye branche yi nga xamante ne euh, tey jii garab gi jur na ko moom la ñu teg fii ci plateau bi am na aussi nga xamante ne dinañ ko dugal léegi ci appel vidéo xam naa ni Mouhamadou Moustapha daf ko xaw a fàtte muy Mapenda nekk fi waaye dina dugg appel vidéo euh, waaye à de rôle dingeen gis li nga xamante ne mooy lu ñu fas yéene waxtaanee tey euh, jëmale ko ci jëmm ji nga xamante ne wax dëgg yàlla moo fi jóge muy jëmm ju baax Mouhamadou Moustapha. Bijou maa ngi lay nuyu di